asalaamaaleykum tous les fans yi Ndongo Lo ñu leen di siyaar di leen bëggee di wax ni tey nag tey la màggalu seen fàllu la màggalu Kazu Rajab la bëgg seen fàllu la ku soppoon la ku ko ko jàpp ba ay wayam da daan way seen fàllu lu bari waaw daan ko tijjee ci ay wayam ak lépp di dagaar nag képp kuy fan si Ndongo Lo maa ngi la koy dagaar man Pa Abdou nga dolli ko ay ñaan ci bis bii waaw barke maam Seera Fall dolli ko ay ñaan ci bis bii suñu borom waaw dañ koo dolli ay xéewal fa mu waaw koy fan si Ndongo yep yëpp kuy fan si Ndongo Lo lay dagaan tey ci bis bii xam naa du ngeen ko fàtte ci ñaan waaye ngeen gën koo fàttaliku tey ndax moom ci muy kon ñu ngi koy dagaan fansam yëpp di leen wax yéen fansi Ndongo Lo yëpp tamit ñu ngi leen di sant ndax gis nañ ñun nin ko taxawoo ak nin nin taxawee waaw ñu ñu tout képp koo xam ni yow fansam nga rek ñu ngi lay di la ziar di wax ni ñu ngi lay fekk fa nga nekk jox la loxo nuyu la ziar la ci bis bii ndax bis bisam la woon ci bisam yi la bokkoon muy waaw lépp lu mu mësaan di def bu kasu rajab bi jub bu kas rajab ñëwee da koy bàyyi ñëw tuubaa ànd ko ñun ba mu jeex kon tey jii nga xam ni ci bisam yi la bokk muy bisu sëñ fàllu ñu ngi dagaan képp kuy fansam rek nga defal nga dolli ko ci ay ñaan bu baax baax na wasalaam jërë ngeen jëf